Fatick 2 Kaolack 2 final baa ngi noonu ku daan ku daan yaay qualifié ku daan yaay gagné Doudou Sané Ngagne Sène Ngagne Sène moom moo représenté région Kaolack Doudou Sané moom moo représenté Fatick nga wax loolu lu mel ni Doudou Sané ngay seen Doudou Sen, ngay seen Sen, Sané ngañ seen laaj na leen ndax pare ngeen acca Sen, Kaulak na combat bi Ngagne Sène Doudou Sané Ngagne Sène a ngi dox ci kaw Doudou Sané Doudou lu wax Doudou Sané arbitre aja arbitre sifflé waat na bi ngañ seen dudu saane eh li final la li final la comment choc aussi ngañ seen johnson bu njaga ñaaw dudu saane xadafi bu jofior la facer de jofior dudu saane compétition bi yombul amul jàpp ngembu

Lagay pa rin ako. eh Doudou Sané daan na Ngagne Sène Doudou Sané eh Doudou Sané daan na eh ngay civilé waa Fatick ñu ngay sibile ee Fatick ee Fatick a suta Kaolack Doudou Sané ma fanga waaw waaw Doudou Sané Fambouda laay Hoi capitaine! Hoi capitaine! Hey! Mẹ đi hào rồi! jéggi jéggi dégg papa we we we we dalim de woy papa woy combat bi ñepp di xaar mu ngi nonu combat bi ñepp doon xaar mu ngi duru Sané Boy fay waye Zal ñu ci waccay combat bi. Lamine bi final la. demi final la fi ci Diourbel. tout droit. waye ki ñu dalal fi ci Diourbel. tout droit Senghane. Senghane Mbodj wala Pape Mbodj doomu Diya la. ñu koy siar ndeysaan. Diya bi nek côté Sibassor. ndeysaan borom bax la mom moy dalal fi tay ci Diourbel waaw mu ñu koy bëgge bokku mu nekkal fi ci ci ñu di bëgg tay fa lañu ñom jégan ga yépp ñu ngi leen di ziar di leen di contane ak képp kuy gendarme di am mbégté ci ñom Pape Mbodj sengan contane continue ndaysan yal seen jàmm Sané Boy Fay magu gayna ko gayna ko dama koy durbel no gayna ko man ma koy man Omar Sow lay bege di bege gayna ko Doudou Sané Boy Fay gayna ko siar na la borom sawal mustafa Sow bege nako Doudou Sané Boy Faye combat des amateurs combat boo xamante ne waa adduna ñoo koy xaar maa maa ngi bëgg waa Koba Ngoy Séeréer sama village di bëgg sama grand Arfa Faye Petit Ordi di bëgg sama grand Ibrahima Ndong Idi Sarr Faye Aliou Faye borom Granda arbi sifle na Doudou Sané Boy Faye stade bi ñëpp ne nañ tekk ndeysaan yaa mbay yëkkati way wa ya tëgg ca suuf suufel ko lamiñ ci direct bi Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané Boy Faye lu xew arbitre Doudou Sané am na avertissement Doudou Faye disqualifié eh Doudou nee la eh Doudou Sané jàll na combat bi nañ leen xaar suba boo fay ngi ne nee na doole eh Doudou Sané Abdou Sene way way naa la du dëggal boppam day wax mais du dëggal Ibrahima Mbaye Sédhiou Doudou Sane Fatick waaw waaw ci drapeau premier tour plus de cent kilos mbugne wat kerna yam ci ko ten jego beso giman na bungo bi ndiak sar cey ande fatu arbi sifle na dudu sane moni won ganaw ci ko jego beso giman na bungo bi ndiak jaksare de san na ngam ngi koy siar borom bi dudu sane na ko cey dudu sane eh dudu sane la française de le capitaine de l'équipe de Fatik. vite fait et bien fait Doudou Sané Tchaï Doudou Sané ay Radovi. Ouais, pep pep pep pep, pep, pep, pep, pep, pep. Tchaï. Oh, Doudou nee na am doole da ko liggéey nee Oui, aïe, aïe. yaay femmes Bouddha 100 plus de 120 kilos ak 100 kilos bu Fatick waaw waaw waaw Nabou Diouf oto yu baax nañu teg ay oto yu baax Doudou Sané Mamou Zidane ci open bi

Abdou Sané Mamou Zidane Doudou Sané daan na Mamou Zidane Doudou Sané daan na Mamou Zidane Doudou Sané fils de Batling Sigi ba ci open bi Doudou Sané seen tur bu Fils de Batling seen tur rouge arbitre sifflé na combat ba. c'est la première fois ñu daje. Fils de Batling Doudou Sané. Papo te fa toxoyaama asaam ke saxa njeg na ne yaqeele

aca arbitre bi sifflé waat na Kobo Ngoy ndeysaan dëkk yi bu Ndapa Kobo Ngoy eh, dëkk Abdou Khadir sama papa yooyu ay champion lañu Amarofe Abdou Khadir bu Ndapa bu Ndapa yóbbu na turu Kobo Ngoy Gune Dourou Sané fils de Batnin Sigi daje am mbër laa bëgg a wax. Doudou Sané daan na fils de Batling Doudou Sané seen daan demi final final trois final bi troisième place bi ci seen la ak Serigne Ndiaye suba Doudou Sané moom mooy bëre troisième place bi. na ko Moussa René jël na troisième place bi ci open bi kon acca mu ngi noonu moo dawul ah, moo daan Doudou Sané six fois na ñëw pour six cent wala sept zéro non bu doon deux deux day bëree non bu doon deux deux day bu doon deux deux day bëree Doudou Sané da dafa soxla woon jël revanche am forcé da ngeen di naxanteeg moom. ñun dañuy liggéey mu doon ñoo arrêté loo nag ah dañuy filmé ah. Doudou Sané inconsolable. Serigne Ndiaye mënoon naa bëre wax dëgg ko yàlla pour man Doudou Sané da ngeen di naxanteeg moom. doo leen ko forcé.